parce que pour lan ah mais Passy bi soxlawul ordonnance 250 lay jar dama koy damay wan gars yi ne leen nañu moytu damay wan gars yi ne leen nañu moytu duñu duñu euh, euh, moo tax may ma wan gars dañ koy maye parce que lii 250 lay jar soxlawul dem pharmacie boutique bi dañ la koy jaay donc mais Bouga lan ngay wax si accueil bi lan ngay wax si accueil bi. mais Pikine c'est exceptionnel vous avez vu ça fait deux heures on n'arrive pas à bouger parce qu'il y a énormément de monde et là euh, comme ñu ngi jëm Guédiawaye ce qui est certain c'est que fii ak minuit du ñu yegg Guédiawaye euh, ce qui est clair c'est que l'intercoalition est parti pour gagner le département de Pikine mais également l'intercoalition est partie pour gagner le département de Guédiawaye Sàmm Sa Kàddu à coup sûr aura, à coup sûr aura la majorité à l'Assemblée nationale. Donc on invite les Sénégalais à voter massivement pour Sàmm Sa Kàddu la coalition, ce qui permettra véritablement de rectifier la trajectoire bi nga xam ne moom la réew mi jël. Et puis nag comme lu ma wax góor jigéen góor jigéen dañ koy xeex ñu góor jigéen ñi dañ leen war a jox seen worma jox leen seen cër ñun dañuy xeex góor jigéen bu ñu demee assemblée nationale dinañ criminaliser wax parce que ñoom ñoo am ay xaritu góor jigéen na leen noppal danañu xeex góor jigéen yi incha allah. si kanam. noonu jël noonu comme ni ngeen ko gisee euh, ànd ki nga xamante ni moom mooy Bougane Gueye Dany euh, saafante ak moom gis nga patriote yi euh, waa gëm sa yaa ngi noonu di. Euh, Bougane Gueye Dany en tout cas gis ngeen ni mbooloo bu bari ñoom ñoo ko topp euh, gis ngeen Bougane Gueye Dany également euh, et toute la coalition Sàmm Sa kadu ñoom ñoo ñoom ñoo accueillir ki nga xamante ni moom mooy Bougane Gueye ziar bu baax mais fu ma gis Bougane waaw gis nga ko de maa ngi ci ginnaawam rek fu mu nekk rek maa nga fa jëm si boppam lañ topp bi tey loolu lañ si wax accueil sant yàlla bu baax a baax fu mu dem askan wi nii def génn ñoom ñëpp seen yaakaar moo tas ci lañ yaakaar gi leen dese mais dañ mel ne depuis l'affaire Tambacounda ba léegi ba mu génnee ba léegi bi da ko yokk benn doole. mun ñu ko téye bi ñu ko téyee day gën yokk affaire bi noonu la baaxee. ba 17 incha allah waaw mais doom day. sama ah, gis ngeen ànd ak président bu nga ne si caravane Pikine bi xam nga Pikine bu waa na ko moom Mama Awa Cissé ak Boubacar Samb ànd euh, ki nga xamante ni ñoom ñooy responsable yi ñoom ñëpp ñu ñëw tey jii euh, ngir euh, amana caravane bi ngir ñu dugg Pikine. jeexal Pikine gis nga bañ duggee Pikine ba léegi depuis takkusaan ba léegi ñu ngi biir Pikine mënuñoo génn Pikine waaw xam nga Pikine nag moom nii la mel ñëpp dañoo ànd ak ñi nga xam ne ba waa sa kàddu la ñu àndal sàmm sa kàddu kese Ouzin waaw ñoo ngi dellu siyaar ñoo ngi dellu siyaar gisoon naa cybercriminalité tey gis naa la. waaw loolu daanaka fu bugaan rek nga nekk. ñun ñooy gay man maay gaynde ak bugaan. gaynde gaynde lay doon ñun gaynde rek lañ lañuy topp duñ topp xar duñ topp bëy gaynde gaynde rek lay topp waaw comme que gaynde gaynde lay topp moom ñun moom day daan fu mu jëm fu jëm fu jëm fa lañ jëm fu mu jëm jëmuñu fa waaw. mais tey lan nga wax bi ñu. non kontaan kontaan rek kontaan kontaan liñ gis fi gën nañ ko gis waaye presse bugaan moo mel noonu. moo ko jëlal askan wi moo tax askan wi jaral ko loolu fay ndax nuxu leen kon askan wi ko tey waaw ngeen di gërëm léegi ñu continuer rendez ah, am tuuti werante xaw na am tuuti euh, jàppante mais Ngom ak jigéen ñi gis nga jigéen ñi nuñu c'est ànd jigéen ñaa ngi noonu fu mu dem jigéen ñi dañu koy caalal loxo

noonu mais maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay. sànq yaa yëkkati affaire ba si kaw man la wàcceel. billaay mais yaa si jàmm. billaay sama xol sedd. billaay man maa ngi jóge ba Ndar. bara la laa yoroo oh, dëkk bara la ñoo bokk dëkk. ngir faa laay sey. amoo billaay sama matériel la moo tàkk ba jeex. mais te comprendre naa mais yaa ngi jàmm. gis nga maa mel nii rek jàppale borom bés gaa be sama jaamil bopp bi namu naa la. ñoo ngi nii rek. maa la gën a da ngaa bëgg Anta Babacar. ko dégg. dëkk ma ah ñoo bokk dëkk maam.